Yang ñëpp ñëpp ñëpp nga ne ñu baax nga taalibe jaaru bëti maraax nu ngi fi te te te te ñu baax ñu fi teew ñëpp war naa leen ndax ndax ndax lu ko waral mooy bàyyi nit daa wóorut te te dinaa ñoo bokk jaaru bëti maraax bi keroog màggalu bàyyi laaj gi kër sëñ jiili mbàkke wala nekk na yëkkati man na baa nuyoo sëñ bi la daal di lampoo si yëkkati ñaari ji naa maa ngi bàyyi sëñ jiw tànn naa ko waaye loolu mu doon rëy man lool man ma sama bàyyi dogalaan jëflante yow ma ne ko kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ñu naan waaw loolu waaw kon yàlla ñu yàlla defal nit ñi dafa ñu xam-xam ne te xew yaatu lool te bari lool te barkeel barke borom Tuubaa waaw na bari lool rek xew yi na bari lool waaw dañ digg yu dëgër te ñu am fu ñu koy def nag ci jàmm ak salaam barke Cheikh Moussa waaw sa waa yéen itam mbooloo mépp waaw amee na cant waaw ñu ngi ñaan ñaanal ci barke sëñ Modou Moustapha loo song ak loo ñaan yooyu yàlla na ko nangu te defal la ci ndam amin amin ndax jotaay bi hmm. taalan nga ko lool lool alhamdulilah maa ngi wax léegi sëñ Mbacke ak sëñ euh, sëñ bi Nour daal ne mi jàmm su mu ràqib ko baa Moustapha waaw jàppi moo ko mbooloo mi ñu ànd hmm. ndax sëñ maa wax man lu ma gëmul hmm. ndax ëllëg maag sëñ Abdou Khadir la waaye dangaa sagal mbooloo mi taaral ko ba tax ku naroon a yaafus sax mm. dootoo yaafus mm. ndax sa soññee mm. ku naroon a tardé dootul ñemee tardé ndax sa soññee ndax sa farlu comme ni ma ko waxee seen géej soo watee dañu wuy si de ndax yow boo doon liggéey ba wàcce rek ngir mel du jàpp la saytaan daa bari doole ah. da di wéy si ku ngir danga koy nangu mm-hmm. soo sëy ni mi ko bi ma demee palaasam daa xam pas-pasam dëgg dëgg mm-hmm. ndax yor njaay mu tooy ah. bàyyi ko fa doo ko bàyyi kenn lu Sëriñ Tubaa koo mm-hmm. yow ni ñu taxawoo mm. ci Serigne Touba rekk tax mm. ndax tey kat boo too woon sa kër mm. ñi lay seet ci dañuy làmb xaalis di la jox waaye loolu ñuru la liggéeyal Serigne Touba ci mbooloo mi moo la ñor ah, ba ci aju mboolem bi ni tànn ci am murid gis nañ ko ci yow nit ku woyof nga ya woyof sax boo ñëw raxasu boo ñëw dem ci cin la yàq boo ñëw séddale ah, du ñoo def la ah. fecc sax daf ñoo koy defal moo tax ma naan Baye Moustapha amul bàkkaar parce que ku diis Sëñ Tuba amu ko waaw sëñ Tuubaa mu ne ku diis bokkul waaw te sëriñ bi nag lu waay dof dof